salaamaaleykum euh, maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp tey lundi deuxième jour de campagne ñi fi Kaolack ci QG bi ci préparé pour génn tey si kanam tuuti dañ dem marche centrale euh, ngoon gi ñi dañ jéem a dem ci département bi euh, def suñuy caravane ànd ak le député honorable Waxi ak les autres élus euh, ñu ngi fii ci QG bi tey di waajal aussi tamit ñëw pro bi président Ousmane Sonko tey fii lay fanaan si après bu mu jógee mbuur incha allah euh, bu ñëwee incha allah fii lay fanaan bu ñu xëyee programme bi téyeeguma ko bu baax je ne pas euh, je pas encore les tous les données mais je pense que y aura un meeting ici à Kaolack. Euh, le, mais crédit je pense. Il y a aussi, il va partir à Nioro aussi. Si li ma li ma dégg ko si dara changé wul ci loolu aussi. élection législative foo ñu xam ne élection yi am importance la élection yi cruciale la parce que bu ngeen seetloo bi ñuy jëlee réew mi ba ba pare dafa am benn assemblée bu ñu fi fekk benn majorité bu ñu fekk ñuy doxal mën nga jël réew nekk président de la république ci doxal ni exécutif bi assemblée nationale mooy doxal exécutif bi parce que loi yeeg yëpp fi lañ koy voté budget yi fi lañ koy voté te boo fa amul majorité li nga bëgg a doxal doo ko mën a doxal te bu ngeen seetloo président de la république jël na fi benn loi pour supprimer ñaari assemblée yi mu bi ñuy mu ñuy euh, caisse euh, caisse euh, Euh, bi bi Abdoulaye Daouda Diallo jiite ak bu Aminata Mbengue Ndiaye jiite woon mais euh, assemblée bi dafa dafa dafa lànk loolu ba dafa obligé utiliser prérogative am décrété dàq ñaar ñooñu mais ba léegi constitu ba léegi euh, kii bi mu fa des institution bi pour ñu dindi institution bi carrément nag assemblée nationale moo ko mën te assemblée nationale dafay permettre. lii nga xam ne mooy euh, deux horizon cinquante bi président de décliné pour ñu mën ko doxal il faut ñu jël assemblée nationale bi parce que dafa am ay loi yoo xam ne ni euh, assemblée nationale rek moo ko mën a moo ko mën a doxal même euh, consultation bi mu defoon ci affaire yu affaire yu justice bi loolu tamit assemblée nationale rek moo ko mën doxal parce que defar nañ documents yi mais il faut assemblée nationale pour mën ko mën koo doxal les lois et règlements euh, portant le euh, portant la euh, supprimer supprimer yu bëri ci ay doole yoo xam ne mu ngi ci loxo procureur de la république pour wàññi ko même moom wàññi doole sax président de la république mi ngi koy envisager parce que fii Sénégal dañuy gis ne président de la république doole ji ko doole ji mu am dafa bëri trop par rapport ak euh, ni réew mi tëddee loolu yëpp ay waxtaan la yoo xam ne nii def nañ ko tënk nañ ko ci kayit war koo doxal te il faut ñu am assemblée nationale bi doo ko mën doxal kon nag maa ngi woo Sénégal yëpp ñu waa Kaolack yëpp ñuy góorgóorlu bu baax ci élection yi jëm te xam ne élection yi crucial la yu am njëriñ la yu am solo la gañe ko danañu tax ñu mën a dérouler projet bi ñu bëgg a dérouler maa ngi ñaan ñëpp ñu génn le 17 ñu def ko ñu ko defoon ci présidentielles yi euh, incha allah dem vote ji jóg dem vote ji comme ni ko sama benn xarit di waxee comme présidentielle dañu wax naan dañuy xëdd vote ndogu jubilé incha allah cette fois ci dañuy ndékki vote añ jubilé bu soobee yàlla ñu ngi koy ñaan yàlla may ñu ndam may ko sunu député yi au niveau de Kaolack muy honorable Roxé Ndiaye ak honorable Alim Badara ak honorable Babacar Diagne honorable euh, Mohamed Nia honorable Ami Mara tous les élus qui sont ici à la région de Kaolack yàlla may leen ndam le soir du sept novembre incha allah.